ba sa rakk bi nga ne ñoo moom la wane ñu booy hmm, fii ci bërëb bi ñetteelu talaata ci weer yi ñu koy ànd ak Serigne Mor Niass xasida ak eh, Serigne eh, Moustapha Mbacké ak mbokki ëxlu xasida yëpp waa kay ñetteelu talaata ci weer Cheikh Moustapha ñu ngi leen di siyaare baax la dàll yi waa ëxlu xasida ngi nii ñii ñooy taxawu Serigne Touba liggéey bu am solo bi ñu ngi siyaare baax suñu Malick ñaan ñu ngi lay baax Cheikh Moustapha ñu ngi leen di siyaare waa adduna bi yëpp dàll adduna bi kontaan nañ ci yéen yàlla na yàlla fa ñu tet suñu Fallou jërëjëf jërëjëf Ndiaye jërëjëf jërëjëf kon mbokki taalibe yi kii ngeen di jàkkaarlool mooy Serigne Malick Mafatul Bichri macha allah macha allah. Serigne Ahmadou Cissé waaw Cheikh Modou macha allah macha allah général kii mooy général Serigne Malick Moussa damaa bëgg a présenter général Malick ci Touba. muy coordinateur mondial ëxlu xasida liggéey bi ngeen di dégg ñu koy defal Serigne Touba fii kenn ngi nekk ci ginnaaw nag ma présenté ko Serigne Abdou Khadre Kane moom Serigne Moutala moom mooy taxaw ngontu Serigne Moutala bi kon mbokki taalibe yi ngeen xam ko ah sëñ Cheikh kon mbokk bàyyi ba <laughs> kën si daw kën si bul daw kii nag mooy Cheikh Moustapha Pène ngontu Serigne Saliou Mbacke Nour Dayen fee ca Xayga altine bu jot kon ñu ngi koy yëgal ñëpp waaw loolu nag léegi umpatul mbokki taalibe yi sëñ Cheikh Mbacke nee na naa bàyyi tuuti dafa yore ka <laughs> ka <laughs> sëñ Mbacke ñu ngi lay ziar bu baax jëriñ yàlla na suñu bam lafal cat ak yëpp kontaan ci liggéey bi ñu def ko sëñ taal fii ci dëkk bi waaw yàlla na sax dàkk gën a yaatu